wax ak yow benn bu góor laa amoon ci la des.
ñëpp dañoo bëggoon dem pour tere seen i waajur rek moom ba muy dem day xam ne pour tere waajuram loolu la moo ko yóbbuwoon.
ndax xale yi boo leen teree duñu duñu de duñu dégg bu ñuy dem sax doo ko yëg lu si teree nga def jamono yi kañ maaka lii kañ yàlla rek moo ko fi mën a jël na ngeen def maa ngi dëkk Thiaroye sur Mer Adama Ndoye laa tudd maa ngi maa ngi judd si 1957 moom laa judd xale yi ñoom sama doom ak sama rakk ñoo dem si mbëkk bi 2006 ci lañ dem ci mbëkk bi boobu ba léegi ñu koy dund nag ak coono bu metti nag waaye sant yàlla ñu ngi sant yàlla bu baax a baax waaw ndax gënoon na fee metti waaye ñu ngi muñ ndax ay jullit lañu il faut lu dal sa kaw bu mettee ñu koy muñ ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax ndax yàlla moo ñu ko teg kon il faut ñu dund ko muñ ko ndax ay jullit lañu waaw kay merci.
dama say ñàkk ñi ma si ñàkk moom kenn lañ woon si ma waa càmmañ lañ ni joor lañ ma ñàkk sama mag bu góor sama taawu yaay 72 ans la woon ma ñàkk sama borom kër moom tam moom sama borom sama mag bi ñoo maase 72 ans la waa affaire bu metti sama mag daanaka moo xiital sama borom kër bi si dem bi sax moom tam mu ànd ak moom da koo yéene rek xam nga tey lii am nii boo amul woon ah man damay sant ay mbokkam dañuy sant ay doomam dañuy sant waa dañuy wax ne yàlla jaam ak pexem yàlla ak dogalam
suñu doom yi nekk ay moom amuñu beneen luñ def mënuñoo dem mooy mu ngi dem dem ci tool yi mënuñoo dem defi élevage ñu ne ngoon dañuy jël gaal yi dem Europe pour uti lu ñu am ndax di tam fa mu dund te dund fa nga koy yaakaare fa ngay demee donc buñ jëlee gaal dem ñu des ci géej gi seen gaal sugux ñu des ci géej gi tardivement la ñu yëg ne suñu doom yi daal des nañ ci géej gi ah mu nekkoon lu métti et ba léegi sa dafa métti
lébu yi ne yi mi ngi woo lébu yi daanaka ñu moom ñu ngi ci napp gi moo ci gën a am doole ñun suñu maam dañ daan bay suñu maam yori tool ñu suñu maam yori ay gaal di napp ba juddoo fekk leen ci géej daal ñun suñu jaboot gépp ci lañ nekk ci la ñuy dem ci la ñuy liggéey ci la ñuy amee ñu leen yàlla may ci la ñuy amee daal kii yu bari daal si la ñuy faj seen soxla si la ñuy def lépp daal géej ñoo gaal yaa ngi gune yaa ngi ciy napp comme ni di am yére dëji wala ñu napp yën wala ñuy def seen mbaasaan mbaal yi ndaw yi mbaalu ser yi daal si la ñuy dimbandikoo ay jën yi daaw ñu jënd jën moom mbaal yi danaan teel rek nga wut sa jën dem jaayi boobu waaye xale yu ndaw lañu nga dem Pikine jaayi boo ñëwee fekkaa mbaal mu takk nii nga ñëw tubbaat dem te doo jënd li ngay ñëw li tubba gën baa ngi dina gaañ bari mais léegi mën nañoo am loolu mënatuñ ko am de
ma yóbbu xale yi ndax ñoom su buñ juddoo si- nekk feranta si géej la ñuy dem xale yi tuuti géej ngay lay sayaay lay soxla rek ñu ne dem ak géej nga sangu ñëw toog si géej gi da ngay ñëw fekk sa doom nekk ci bu bu tefes gi fa la ñuy waxtaane fa la ñuy footballee ka def lépp si presque ñoom ay lébu la ñu géej rek la ñu xam géej rek la ñu xam
salaamaaleykum waa atelier yéen a ngi yendoo jàmm waay. waaye baa ngi am kaala ayo toppalal ma li ma toog
ko woon a nekkoon nag samay activité comme samay frères yëpp ñu ci bëri ay dañuy dem géej am ay gaal am na ay cousin dem naa géej ànd nag ku ñuy wax capitaine Njaw Njaw Diop bu Baye Birame yàlla la ko yàlla yërëm donc Njaw man sama ànd ak moom dem géej mbaali ci gaalu fi laa tourné am naa aussi sama grand frère ñu koy wax Ba- Badara Fall ñëpp gën ko xam ci Dabray moom it jël na ma ba taay ñu ànd dem géej ma dem fanaane fanaan bu xëyee ñu teer
géej googu ñuy dem nag ci la ñuy dund géej googu ñuy dem ci la suñu aada ne géej gi ñuy dem ci la suñu cosaan ne lépp c'est autour de la mer ñun mos ñoo bëgg a liggéey feneen góor ñi ñoo daan dem géej suñu teeree jigéen ñi jaay mbaa ñu soppali li des ndax boobu temps li am léegi amul woon amoo foo congeler jën amoo foo def glace amoo foo surgel loolu lañ mos a liggéey loolu lañ mos a dundee mosuñu am benn problème
bi ma nekkee xale ba léegi maa ngi ci yaay ja yaay yaay lañ xam liggéey rek lañ xam ñoom ah jënd ak jaay saa yu xëyee ba ca sa kër ñëw xëy si fii ñëw jaay jënd jaay boo amee dara yóbbu sa kër ah góor ñi góor ñi lépp mënuñu ko il faut jigéen ñi jàpp ci góor ñi mënuñu lépp ñu ngi def de waaye mënuñu lépp foog ñu jàpp góor ñi xam nga jigéen ji ci la ñuy yëngu waaw.
donc loolu moo waral dëkk bu dëgër ak bëgg loo dimbale sa waajur ak yow loo amal sa bopp moo tax ñu dem mais bu ñu amoon lu ñu gënal lu ñu bouger Sénégal di dem feneen li wolof yi di wax ne kuy wàlliwaan sa dëkk moo neexul bon immigration wàlliyaan la rek parce que Sénégal moo neexoon moo tax gars yi di daw te loolu nag gouvernement yi ñoo ci war a taxaw mënatoo taxaw ci tefes gis géej jën lan moo ko waral ay chalutiers yu nekk ci tef géej gi ngay taxaw fii di leen gis bu nekkoon au fond sa au large foo xam ne gaal yi duñ fa egg sama xaw a tane mais dañuy ñëw ba nga taxaw yow fi ngay taxaw di leen gis ñu ñëw di manque géej gi ak des filets yoo xam ne li ñuy wax mbaal diri yor mbaal yoo xam ne lu romb dañ koy yóbbu maay yoo xamante ni ñii la toll. xam nga boo yoroon sax maa yoo xamante ne maa yu yaatu la yu rëy nga xam ne jën bu ndaw bi bu ñëwee day jàll daal du ko téye mais maa yoo xamante ni yoo sax daf koy jàpp.
waa lan moo ko waral lan moo tax géej gi amatul jën lu tax waa ñi bato yi lañ ñu wax waa parce que man loolu laa ko teg ndax boobu noonu bato yi amoon na mais bariwul woon daaw ñu jàpp jën yi ñu daan ay yoos lañ daan jàpp bato yi bu njëkkoon yoos lañ daan jàpp mooy yi ñuy def bato kii sardine yooyu lañ daan utiliser mais léegi si li ñu war a lekk ñoom moom la ñuy jàpp nit ñi gën a stressé dañuy wax naa stressé wu baaxul si doomu aadama mais caare yi ñëpp a stressé wu.
nga dara amatu fi ba tey ñooy jël jëndi rek yóbbu ma ne ko ba tey rek ñooy jël jëndi yóbbu moom lañ daan dund fii yebe yi ñu jël di yóbbu moom la jënd daan toppa ah ñu ngi ciy gis suñu boppam mais bariwul lool lool de par rapport bu njëkk amatu moom toogaay rek la ñuy bañ toog rek la ñuy bañ
maa ngi leen di xaar maa ngi leen di xaar.
waa ndax ñi leen daan dimbali gisatuñ leen seeni dooma daan dem géej di leen dimbali bu ñu ñëwee naru léegi géej gi daa amatu dara dara amatu ci looloo tax xale yi dem ñu nit duñ fi toog war a jox suñuy doom ñu lekk wala faj suñuy soxla gisuñu leen ñu daa dee dem ñu nit daani suñuy doole takk suñuy sa dem daani suñuy doole dimbali njaboot gi loolu rek la de ñoo yor kër yi benn góor yorutu fi kër benn góor yorutu fi kër bu tabaski jigéen ñee xotti ñoo jëndi xar ku si watin sax bu sa jëkkër yor yooyu yaay rey sam xar sam xar sa sa tudd ngénte sa bopp am na fii caare defar sa néeg jigéen ñee def lépp waaw ndax góor ñi gó- gi- gó- eh, géej gi lañ yaakaaroon te géej gi dara amatu fa te ay mag lañ mënatuñoo def
jeune pêcheur de Thiaroye-sur-Mer xamuñu leen lu dul pêche bañ juddoo ba léegi moom la ñuy suivre. 96 laa commencé dem géej aw ma beneen métier jànguma école jànguma alxuraan jànguma métier bu dul géej 96 ba léegi nii damay dem géej nekk ak sa yaay ak sa papa ak say famille li may dund man pour li ko toog fii moom ngay dund peut-être damay waxee si seen si seen si seen si seen si seen si seen kàddu ñoom parce que ku li fii ku fi ñu fi toog ñëpp dañuy dem géej ñun fii ñoom ñëpp géej la ñuy dund ñun ñëpp ay ay père de famille la dañu yor jabar yor ay doom doon ay soutien de famille xam nga ñun ñëpp géej la ñuy géej la ñuy yaakaar quoi. exemple tey bu ma la mën a misaalee mooy pêche bi mooy Sénégal. mais géej bu neexee adduna bi day Sénégal day dox mais géej gi bu taxawee Sénégal day dëgër je suis du caaxaan lu waaye di jaay du jar te lu waaye di jaar lu ne cent franc ci àll bi boo ko indee ci mool yi ñu jëndee ko deux cent bu géej gi doxee kon dèjà ñun suñu problème mooy état bu Sénégal nan lan mën a def ba mu dimbali ñu jàppale ñu ñun jeune Sénégal parce que bëgg nañ toog ci réew mi parce que nit amul lu dul réewam mais kuy daw bay dem mu jaral la ngay gëdd sa réew di dugg ci ay gaal di dem Babylone peut-être yow sa réew moo moo moom nga gisatul loo xam ne nii moom nga mën a satisfaire pour jariñu ci pour sa njaboot mën a nekk en règle mais man jaar naa ci am na lu ma ci dunda mais duma la nëbba moment yi parewu ma pour dem man jeune bu ma déggal en tant que chinois comme yow laay wax dëgg la état li mu ñuy teg métti na trop mais nag bu mu jaral benn sacrifice bi dugg ci gaal xamoon ndax di nga àgg xamoon ndax di doo àgg xamoon ndax boo àggee lii tax nga doon rey sa bopp pour dem di nga ko fa fekk wala déet parce que li ma lay wax nii lu ma dund la man lu ma dund la parce que ñun gang lan woon gang boobu ñoo takkandoo ñii réussir dem Espagne ñii dee ci ndox mi ñii ñi bisiwaat Sénégal
rëccu naa ko ndax ku dem ba toog di jooy mën ngaa ñëw na ba ci tefes gi nag ba tiim say mbokk nag di xaxataay naan ñun ñii ni di ngandal déedéet waxal la xew ci géej ga waxal la xew ca gaal ga waxal guddi ya nga ca def metti gi mu metti donc loolu bu ñu ko waxee suñuy doom wax ko suñuy rak bu ñu ko dégloo dëgg dëgg dootuñu duñ jël gaal yi di dem lu mu metti metti neen toog muñ booba léegi nag ñu ngi toog di muñ am muñ nag wala fi neen amul fu mu yem mun nañ muñ rek ba nga xam ne taraanga yu ñuy dégg Sénégal mu fiy feeñ
ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي سيكون بالليل ويقلم ما جرت من نهر ثم بعثتم به ويقطع أجل مسمى ثم إليه مرجعكم فإن بكم ما كنتم تعملون ولا قر فوق عبادي وارسل عليكم عبدة أتى إذا جاء قدر الموتى فتوفوا
L'idem, c'est pas l'esprit. c'est le cœur qui part parce que nit ñi tolloowuñu bëgg-bëgg man mën nga ma aider mën nga ma fekk ne da nga ma bëgg a téye peut-être l'autorité moo la fi yabal mais la nga may jox bokkul ak li ma bëgg te tu ne peux pas le savoir mën nga ma jox te fekk li ma bëgg man xam naa ko te duma la ko wax soo dëralee ñaari nit am na fukki nit yu bëgg a dem donc man noonu laa gisee ne daal l'immigration c'est un phénomène comme je dis C'est comme l'histoire. Ça va se passer, on va en donner une définition, mais jamais nous en aurons une définition communautaire.
waaw ani- animation la rek loolu cosaanam lébu la rek cosaanam lébu la ñun dañoo judd fekk suñuy maam di ko def waaw di ndaw raa bi di gumbe di gumbe ak raw raa bi loolu yëpp cosaanam lébu la déedéet lébu ak gumbe ndaw raa bi nag ak gumbe bokkul fecce yi sax bokkul waaw mais presque benn animation bi la rek ña koy tëgg mooy ñuy tëggal yi ñooy tëggal yi mais fecc mi moo moo moo moo moo paare du bokk niñ koy fecce mooy yére cosaan yi sare rabal yi cuub yi yooyu yëpp affaire cosaan la daal di takk say cax ak say dollar ak say samba sembe sol say marakis daal di musóoru cosaan yi suñu maam yi daan def loolu booy gumbe mi noonu ngay soso solo moo tax ñu jël couleur bu ñuul boobu di ko def di ko di ko maquillage ma ne cosaan lebu dañuy tuuru dañuy ndëpp dañuy ndaw rabbin yooyu yëpp dañ koy def ma ne ko loolu yëpp ci cosaan bi la bokk dañuy ndaw rabin dañuy ndëpp dañuy tuuru waaw loolu yëpp dañ koy def yenn saay bu at bu jot ñu tuurul géej gi si ngay rey def sax soo dugub nàkk sotti ci biir toog fa yendu fa soo ba ngoon sangu ñaan ub loolu bu nawet bi am lañ koy def koor bu ñëwee nga ub bu koor jotee kenn du laal foofu bu koor yi jotee ñu dem ubbi bu ñuy waaj a nawet ñu tijji
wax naa ko sànq géej mooy totemam géej mooy léppam ay tuuram ay àndandoom ñi koy jàppale même boo demee France Europe dañu am ay totem waaw wax naa la sànq de la ci cosaanu lébu ndëpp am na te ndëpp daf ñuy faj ñun amuñu ay psychologue amuñu sociologue soo tëggee ndëpp say mbokk jàppale la nga feebar gis say mbokk yëpp ñëw ci autour toi dafa am benn effet bu muy def ci yow compassion la indi ci yow que li nga nekkee ñëpp ñu ngi ci ànd ak yow di ci loolu loolu faj na nit ngeen ànd bokk lekk ànd bokk togg ànd bokk jooy ànd bokk fecc loolu aussi day jàppale doomu aadama ci aadama ak cosaanam
زيتنا ومشايخنا خاصة إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات أجمعين عامة إلى جميع صالح رب العالمين
فاتحة صلاة الفاتحة parce que société suñu société di mu bindoo moo tax da ngay toog sax ñu naan liggéey ndey añu doom xam nga xam nga ay stigmatisation ay wax yu doy waar dans les communes wax yu doy waar waaw man je peux supporter mes familles dañu may wax yenn wax yoo xam ne dañu ko seen biir kër surtout quand c'est une famille polygame on te voit très mal kii doom egg na kii doom eggut xam nga da ngay ñàkk ba pare ay déni waaw ñu lay joxoñ donc ah waaw waaw ay dëmm la ñoo am na sax man am na ko xamante ne nii dafa ñu bés ma ne fa ma dëkk man jotuma fa dara ndax nee nañu maa lekk sama maa lekk sama doom lekk sama ñaar doomu wujju kooku wax na ma loolu man ma ne ko amul problème bu yow xam nga lekkoo rek gëmal yàlla mais dama koy dama koy rassurer noonu rek mais c'est très difficile on supporte beaucoup un poids très lourd on te loolu nit ñi rendu ci compte on n'a pas fait des analyses sur ça mais c'est la vie mbëkk mi amaluñu njariñ ndax bu ci benn doom deewoon rek ar amaluñu njariñ estime ak li ci dee yëpp man mbëkk mi dem naa ba gis ay xale 14 ans ñooñu dem ci mbëkk mi loolu dafa tegginu ndax xale dafa am droit xale droit mooy dem jàngi école bu ci tolloo xale boobu dem liggéeyi mbëkk mi billahi wax naa la man gis sama benn doom bu des bu ci amoon rek métti na ñëpp estime ak ñi ci dee ñëpp loolu moo ñu gën a métti te liy saafara mbë mbëkk mi mooy que xale yi ñu tële liggéey xale yi ñu jàngi
ñooy poussé de waaye man dafa dëgg yàlla man xalaatuma woon sax loolu ñoom ñoo ñëw rek wax ma man xalaatuma woon sax yooyu dina am. xanaa dag maa bëgg a rey doo dem mu sukk samay tànk sukk def ma nii na ma ay yaay mënoo maa bàyyi da ma bëgg nga ma dem yow da ngaa sonn yow laa bëgg a dimbali wóor na yàlla loolu la ma wax da ngaa sonn dama laa bëgg a dimbali te amoo kenn ku la dimbali da ngaa sonn dama laa bëgg a dimbali sukk samay tànk wax ma loolu foofu sama yaram daa dee daw xam nga doom ak yaay rek ma ne ko comme loolu la dénk naa la yàlla demal yàlla ne fépp
benn benn nit bu desee ci géej rek metti na estomac benn dëkk lu mat ay deux cent jeunes des ci année boobu sax jour ñu nawetaan parce que crème bi moo demoon
waa man ñàkk naa sama borom kër ñàkk naa sama mag boo bokkal ndey ak baay ñàkk naa sama borom kër. waa affaire bu metti sama mag daanaka moo xiital sama borom kër bi si dem bi sax moom tam mu ànd ak moom da koo yéene rek xam nga tey lii am nii bu amul woon. waxatuma laa nga ñàkk si ñaar nga yenu ko mu metti metti na de trop mais man loolu sax du ma si bëgg di dugg ndax su ma siy dugg dafa am lu ma yëg
su ma ko yëgee man damaa toog benn jour rek suñu benn mbokk sama rakku yaay mu demoon biir caare xam nga fu mu demoon moom mu dégg ñu ne am na gaal gu toj rek moom mu tiit moom it sëtam si la dem sëtam si la dem mu ne ma ñoom la ñoom la ma ne ko du ñoom mu ne ma ñoom la ah ma ne ko kon ñoom la après ñu nekk foofu jooyoo ko di kii affaire bi métti lool saare ke ñëpp kë- ñëpp a yëg kii bi mbëkk bi moom ñëpp la touché kër goo dugg bu fa ñaar demul ñett dem fa kër caare yëpp bu fa sa rakk demul sa doom dem na fa wala sa jarbaal wala sa sa rakki jëkkër
dañ doon jël ay nouvelle rek ñuy gëm ñuy gëmul mais jusqu'à présent ah am na ñoo xam ne ba tey la ñu gëmoon ba tey ñu ngi ko gëm ñii dee ñii naan dee nañ ñii naan deewul man moom wax dëgg yàlla commencement bi moom gëmuma woon mais sama doomu bàjjen bu nekk foofu moo woote mu wax affaire bi dëgg la parce que moom ñëw na boo gis ay nit ñi dee parce que mënoo xàmmee kenn fii ñëpp a ngi nii si tefes gi kon li ñuy wax dëgg la nañ def sarax ñu wàcce kaam man si laa xam ne loolu la yàlla dog
bi ñu jógee si kii bi mbëpp ak choc bi ci amoon nag ni mu méttee nag ma ne nag naa toog fi may bu ma teyee ma feebar boo lëggee ma feebar bu wér lëggee ma wér ñaari fa ñett ma feebar tension bi yéeg ndax tiitaange après nag si lañ ma benn xarit sama benn xarit na ma léegi da ngay ut xaalis ñu ànd ñu ànd dem ci luuma yi su ñu demee ci luuma yi léegi ngeen ngeen ñu commencé ngay liggéey di si jënd di indi di taag teg sa taabal di jaay semaine bu jot nga dem ci luuma bi dem jaay ndax moo ma ne yaa ngi toog rek di xalaat bàyyil xalaat bi te nga jóg dem liggéey boo jógee dem ci marché yi dama ko ñëw bu yàggee di nga fàttaliku yëpp xëy na doo fàtte choc bi sa doom bi mais dina am yu bari yu mu wàññi si yow waaw ba dootoo tal sax toog fi di misère loolu moo ma ci génn moom. dañoo ñu dañoo judd fekk suñu yaay di kalef di liggéey suñu papa yi ne ci tool yi ak géej gi léegi ñun bu ñu juddoo fekk suñu yaay nekk ci marché bi di jaay ñun bu ñu juddoo loolu rek la ñuy gis di ko def loolu nag moo tax bi xale yi demee man defuma dara ma continuer
bi xale yi desee ci géej gi man ci laa ne toog di jooy du solution tàllal loxo ñu lay may du solution di yërmande ñu lay yërëm c'est pas la bonne solution ndax suñu dem dañu demoon liggéey kese ci laa ne ngoon sama doom bi des ci géej gi dafa am beneen doole bu ma war joxaat def beneen lu mu yeewaat ci man lu mu gën a yee ci man sax pour que ñu saafara lii donc ce ce phénomène social ñooy nañ ko jéem a saafara moo oo jigéen ñëpp ñu seen doom des ci géej gi def ay visite à domicile dem seen i kër wax ak ñoom ñëpp sama kër lañ doon ñëw ma ne ngoon toogaay bi ne amul njëriñ tabax association suñ ko tabaxee ñu xam ñaata la ci suñu doom des ci géej gi suñu paree ñu mën activité de sensibilisation di yee askan wi ndax dañu naan jigéen ñi seeni yaay ñoo jël seeni xaalis yóbbu seen i doom ñu dem wala ñu dem ci sëriñ bi uti ñaan wala ñoo fexe ba seen ay doom dem donc loolu yëpp su amee ñun ñu ne jigéen ñi loolu ñu wax naam mën na nekk mën na bañ a nekk sax nañu changer la donne taxawaat takku ànd pour wane jigéen dafa am solo ci askan.
waaye man su ma mënoon man ñëw taxaw jë jàkkaarloog moom li may def daal mooy ah jàkkaarloog géej gi ñaanal daal néew di doo néew yi néew yi ci des yëpp déedéet mais nañu gëstu ñooñu ak njaboot gi ñu bàyyi ak veuve yi waaw li may bind maa ngi bind ci récit laay def parce que Abdou Latif Coulibaly ku ne xam na ko waaw xamoo tentation bi ñi ko am mooy ñiy masta dem am na sax ñu dem bëgg a tàntewaat mais man bokkuma ci ñooñu vraiment may ñaan képp ku may déglu tey doomi Sénégal mais dama leen lancer un appel ñu xool ci sama jëm ba mu dugg ci gaal yi mais ñu ñaan yàlla may ñu teraanga fi ñu dëkk ngir yàlla ñu xool ci loolu rek ñu bañ a dem ndax ku dem donte egg nga sax bi nga eggee da nga ko rëccu lu tax may dugg ci gaal yi si c'était à refaire ñoom duñ ko defaat te ñu nga Europe
léegi man sama papa bi mu fi nekkee avant muy gaañu nii lu war ci gune yi dañ ko daan def ak sama yaay sama yaay nag mu ngi fi ba léegi ba tey bàyyiwu xale yi nag ñun ñii tam ay tabaski yi bu amee yi dañuy toppatoo xale yi luñ ci mën a def def ko mais xam nga tamit nga bëgg a yor sa kër yor keneen sax doo ko man mais xale lañu mais boobu xam nañu mais boobu xàmmee lañu xam nañu léegi xale yu ndaw lu xale xale tuut tuut xam nga ku dee xam nga dee umbatul kenn léegi
gis nga jaaykatu ndox yi boo xoolee ni ngay xool nii sax jaaykatu ndox yi démb ak tey jën yi mu ngi commencé di am tuuti tuuti fan yii yëpp amu fi woon fi mu nekk nii gis nga ñiy jaay ñi même boo xoolee di nga gis ñiy jaay saabu ñiy jaay ndox ñii di wal ñi ngi wal ku si nekk di nga am loo yóbbu sa kër noonu rek la fa demee.
mu ngi ku ma déggaloon di nga toog dama sama rakk boobu bu mu demee nii sama doom passage na jox woon na 200000 pour passe pour dem. waaye bu loolu amee lañ ko tere mu baax mu toog dem wutiwaat leneen mu gën a daal xel kii dem na ñëwul keneen bëgg a demaat moo doo ko mën a seetaan
ba tey ji am nañu gëmul sax ndax xam nga ñun dañu am cosaan ñun ñëpp nekkuñu sénégalais soo amee ko de nga gis koor bi soo gisee koor bi sax dina la remonté mais des fois da da am ngay taa say sa xel daal jax jaxasoo ñu naan ñu ngi ñu naan mi ngi fu lëndëm ñu ngi ci benn camp ñu tëj leen ñu ngi tëj ci benn fu fu sori donc yooyu yëpp dañ la koy wax te te gëm yàlla dal moo fi ne rek gëm yàlla rek gëm yàlla rek xam nga boo gisee sa koor rek nga xam ne fii lañ ko suul nga mën di fa def ay ziar di ko ñaanal mais te fépp yàlla yàlla lu mu dogal rek mënoo ci dara sax fu mu ko oo rek foofu ngay dem te géej tam comme ay bàmmeel rek la da ngay gëm rek da ngay am a gëm rek philosophiquement nga ma gëm ngay gëm yàlla te boo gëmee yàlla mënoo cee boole leneen mënoo gëm yàlla par di gëm yeneen nga nangu dogal bi rek xam ne loolu yàlla dogal ci ñoom mais c'est très dur c'est très difficile mais liggéey rek soo liggéey itam. ne da nga di nga ne tax nga nga jàppale leen daal ndax liggéey mu taxoon a dem rek.
bàyyiwuñu quoi parce que bi ñu defee clandestin échec yàlla mayaat na suñu bakken ñu ñëwaat ci réew mi tooguñu quoi ñu ngi ñafe suñu life pour génn ci ndool gi ñu ne parce que njëkk nañ am gaal 2013 mais gaal googu yàlla dafa def mu toj bi mu tojee peut-être amuñu moyen pour jóg pour defaat ko mais yàlla mu ngi ñuy suturaal tey li ñuy am mu néew mu bari ñu ngi ñëw di ci jënd ay benn bant ñaari bant moo indi gaal gi tey parce que gaal gi daaw laa ko commencé bi ma ko commencé daaw comme condamné laa ko jàppee des fois ma am sama cinquante mille jënd benn bant teg des fois ma am sama cent mille jënd ñaari bant teg xam nga di jaayante di taxawal ndànk-ndànk ba yàlla def instant yi sotti na quoi daanaka liggéey naa ko ba mu yàmm fii ay peinture moo ci manqué ak ay quelques finitions pour ma démarrer waat sama waar mais dëkk bi des fois day metti
man day wax dëgg yàlla ba léegi sentir ma ne daf dee man xëy na nag gëj naa ko gis nii rek mais man sama yaram ak samay mouvement bi man laa wax sentir ma ne moom comme ni nit amee naqar nii di ko yëg ne xam nga doom sidit la pour man sentir ma dara daal xëy na nag mën naa am dem yàlla may ma loolu comme benn doom la mu mu mu ne naa ko may ci biir côté mu bañ a sentir dara mais man mu mel na ne dafa tukki rek man.